waaye daarul alimil xabir mooy tur noonu la ko Sëñ Tuubaa tuddee ndax fii ñu fii fii fii ñu tax nekk nii wax ni ne Cheikh Abdou Khadre fi la gënee àdduna Sëñ Murtala fi la gënee àdduna Sëñ Ibrahima Bàcc fi la gënee àdduna dus day ci la yi nga xam ne moo ko sanc kon fii la jaayante ak yonente bi ak boroomam yoonu géej gi ci mu ci biir jàkka ji buur yàlla daal di signé jox yoneen ba mu signé gaaña daal di jiital Bamba kon Mbacke Bari lépp lépp lépp ci juróomi weer lañ koy tënk. fi ñu nekk mooy Gabon ñu ñëwal leen fii ci débarcadère bi nga xam ne fi la sëñ Touba wàccoon 1895. yi nga xam ne xew na ci montagne sainte muy marale gi ñu ko marale woon ak garab gi doon ko jéem a fetal te yàlla sottalu ko loola tolloo woon ak bisub talaata. ñoo ngi fii fi Mayumba. dëkk bi nag di dëkk boo xam ne fi sëriñ bi di ñëw booba ni ñu ko waxee booba ñëw fi yombul waaye ci yoon ci yoonu ndox la jaar ba ñëw fi te mooy ginnaaw bi nga xamee ne. Euh, jóge na Libreville. mu mel ni nag am nay xas yu ràññiku yu mel ni jaalibatu muraqib fii nu nekk la ko sëñ Tuubaa ko ci dex gi di la bañoo. waaw bi sëñ bi nekk nga xam ne booba climat bi taw bi bari bi ak li ñuy tuddee ay godd ak mutu mutu yi ak yi nga xam ne day matt yooyu bari woon na fi lool sëriñ bi doon jànkonteeg loolu lépp. Lambaram nag mooy dëkk bi nga xam ne fi la sëriñ bi mujj a nekk. li desoon ci tukkib géej gi. fii la ko jeexale bokk na ci li yéemu ci Murtani it Murtani sëñ bi dafa mujjoon nekk euh, sax na fa lool ba nga xam ne daanaka lu muy am Sénégal rek am na ko fa daara ju mag ak njabootam ña nga fa woon da nga dégg sëñ Moussa Kanaan sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fall seen tarbiya gànnaar la Cheikh Amadou ñëw na fa njabootam googu waxuma la tarbiya wu nañ fa waaye jàng nañ fa jaarim daanaka lu bare bari lu mu taxawal ci ay mébétam injaazaat réalisation yi mu taxawal yëpp ci dundu jaarim la ko mane ndax dafa am dundu istiqraar gën a indi euh, tabax bi ak li a indi daara na ci Jurbel sëñ Tuubaa baraag yi fa nekkoon yu muy bari lool lu ci bari ay téere la fa dencoon salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar